mbokk alhamdu lillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi santar suñu boroom mi ñu dajale ci néegam bu tedd bi ñu fas yéene jël téeréem bu tedd bi di ko jàng tolloon ci suuratu saafaat ci aaya juróom-ñaar fukk ba ak juróom-ñaar wa ja'alna zurriyatahu humul baaqiin alhamdulillah alarbay tey ji mooy alarba bi jëkk ci ñetti weer yi nga xam ni suñu borom yàlla subhanahu wa taala moo leen tànn warumaan leen tey jii di juróom-benni fan ci weeru zulqaada wala fi di ko tuddee diggu tabaski di ñetti weer yoo xam ne nii it jullit da koo war a bàyyi xel sunu borom yàlla lu màggal jullit da koo war a màggal te mooy góorgóorlu jéem a téye suñu bopp lu raw nañ ko daan téye ci bu ñu nekkee ci yeneen weer waaye it jéem a góorgóorlu yokk suñu jaamu yàlla nu raw nañ ko daan defee ci yeneen weer kon incha allah ñi ngi war a jël tey ay juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ci suratu safaat mooy suñu boroom subhanahu wa taala fi muy waxee wa jaalna zurriyatahu humul baqin incha allah bu Cheikh Ousmane Pare
وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظن العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم sunu boroom mu ni yonent yàlla Nuux day bam ñu woo ñu wuyu ko wa ja'alna zurriyatahu humul baaqiin def nañ njabootam ga ñoom ñooy ña des ci kaw suuf wa tarakna alayhi fil aaxiriin bàyyi ci moom it te ña nga xam ne ñooy ñu mujj salaamun ala nuuxin fil alamin te mooy jàmm mucc day mi ngi ci nuux ci biir mboolem mbindaa fan yépp inna kazalika najzi al muhsinin naka ni it la ñuy fayee ñay rafetal innahu min ibadina al muminin moom day bokkoon na sunu jaam ya nga xam ne dañoo gëm thumma agraqna al axarin gannaaw ba ñu daal di labal ña ca des wa inna min shiatihi la ibrahim donte ne bokkoon na ca farandoom ya kii di ibrahim is jaa rabbahu bi qalbin salim bi muy dikkal boroomam ci xol bu sell iz qaala li abihi wa qawmihi maaza taabudun bi muy wax ak baayam ak xeetam mooy yéen lu ngeen di jaamu a ifkan alihatan duna allahi turidun ndax ay dóoral ci lu ngeen tuddee yàlla gannaaw yàlla moom ngeen di bëgg di ko sàkku fama zannukum bi rabbil alamin ana luy seen njort ci borom bindaafan yi fa nazara nazratan fi nujum mu xool ab xool ci biddiw ya fa qaala inni saqim mu ne man day dama feebar fa tawallaw anhu mudbirin ñu wëlbatiku ci moom doon ñoo xam ne ñu koy won gannaaw lañu mi ngi noonu bokk suñu àllarba ji wees suñu boroom subhanahu wa taala mi ngi ñu doon fàttali jaamam ba mu njëkk a yónni ci mbindaafan yi mu yonent yàlla nuux alayhi salaam nuux boobay daal di fay nekk di woote lu jege junni at xeet bi dem ak moom fu ne jaar nañ fa ak moom ci sabootee ki fitna waaye dem nañ ba ne ko soo bàyyiwul li ngay wax day da nga bokk ci ñi ñi ñu dóor ay xeer ba ñu dee ca la woowee boroomam subhanahu wa taala borom bi ne ak a baax ka nga xam ne moo ko wuyu te itamit nga lawaay doomu aadama fexeel ba yow moytul tooñ waaye bu ñu la tooñee it xamal ne avocat avocat yi juge juge yi borom kattan gi yépp mooy suñu borom jalla waala amul kenn ku ñu tooñ mu yaakaar yàllay kese woo yàlla lu dul yàlla wuyu ko sunu borom yàlla kon wuyu na ko musul ko moog njabootam ci benn gaal gaal googe noox duggoon na ca moom ñëkk a gëm suñu borom yàlla daa di alak ña nga xam ne ñoo fa des amma waa gaal ga àndoon ak nuux la yàlla dogal mooy kenn bàyyiwu ci njaboot ci kaw suuf nuux alayhi salaam kese moom mooy ka nga xam ne moo bàyyi njaboot looloo tax ba yow jullit xamal ne mboolem ñuy dund tey ci kaw suuf yeneen ci yàlla nuux mooy seen maam dañoo ñuulam dañoo joonam dañoo weex yonent yàlla nuux mooy seen maam borom bi nee na noonu laa bàyyee woon ci moom ci mboolem ñiy ñëw gannaawam ñu koy fonk di ko ñaanal jàmm ca mooy mboolem yonent yi ñëw gannaawam ak seeni xeet ñu fonkoon nuux lañu fu ñu ko tuddee rek luñ cey teg mooy alayhi salaam looloo taxit yow julit du ay teggin mukk nga tudd yonent yàlla nuux wala benn ci yonent yi te waxoo alayhi salaam ay ak mucc ñu ngi koy ñaan mu sax ci moom dakk mi ngi noonu assalaam mooy jàmm mooy mucc ca ma ngay mate ci biir aljanna kon képp koy ñaanal jàmm yaa ngi koy ñaanal mu bokk ci ñañu ajjana sax fa ba faw salaamun ala nuuhin fi alamin borom bi nag ni nii ma faye nuux benn mooy musal ko ci ay noonam ñaar mooy bàyyi ci moom tagg wu rafet ba ilaa yawmi diin képp koo xam ne yaa ngi rafetal nii laa lay faye kay tamit mbokk julit amul lu gën a baax jaami yàlla yu baax yi di wax ci yow lu baax ci bi ngay dund ak bis boo deeyee loolu nag lenn dong moo la ko mën a may mooy nga bokk mi ñal muhsinin ñuy rafetal ñan ñooy rafetal moo ñi nangoo roy sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lépp lu ñuy def ñu def ko te yàlla kese tax ñu ngi noonu ñu def ko te yàlla kese tax bokk na ci ku mel ne imaamu malik rahimahullah bim bindee téeréem boobu di Muwatta Malik nga xam ni mboolem kuy jàng côté l'islam xam na ko am na ay ñeneen ñoo bindoon ay téere ñoom it tudd ko Muwatta Muwatta am na ñëw na ko imam Muwatta yi de bëri na mu ne waaw waaye bu jamono doxee dañ xam ana kan moo ca sellal ak ku ca sellalul te fa lillahi alhamdu mboolem Muwatta yooyu jamonoon teg moom yooyu yëpp raaf nañu Muwatta Malik moo ca sax kon it soo bëggee génération di ñëw sa gannaaw di la fàttali ko di wax ci yow lu baax fexeel bay jëf lu baax te bi nga koy def yàlla rek a tax borom bi nag ne moom day daa bokkoon ci jaam yi ma gëm ngëm gi mu gëmoon yàlla moo taxoon mu nangoo muñ ca yàlla tax muñ goo xam ne ku nekk ci ñun bu koy bàyyi xel wallahi war na amaat confiance mbokk ñun sunu dund daa gàtt yàlla subhanahu wa taala bi muy wàcc aaya yi ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente baa ngi biir màkka booba woote lislaam bi amagul sax fukki at doonte ne ni sunu borom di ko wax ne ko yonent yàlla nuux moom woote ne juróom ñeenti téeméeri at ak juróom fukki at moo gaa yi lii du yokk yonent bi muña kay naka noonu nit yow doomu aadama yaa ngi nekk ci benn place boo xam ne yàlla dala fi nattoo place bi tudd adduna ki fi gën a yàgg ci ñun mooy ko am téeméeri at natt yooyu la fi yàlla nattoo nga laway muñ ko muñ ko rafet xam nga li la ciy xaar mooy aljanna te yàlla dund lu ñu trois siècles dund lu ñu juróomi téeméeri at dund lu ñu juróom-ñeenti téeméeri at xeeti yonent bi dañoo gàtt fan loolee kon julit di war a góorgóorlu muñ kemtalal kattanam dund gu gàtt gi nga xam ne bu ko méngalee ak dund yu jëkk ya du doon dara nekkoon na jaamam yi gëm amma ña weddi woon mboole seen sunu borom nee na ma labal leen sunu borom bàyyi loolu daa di ne wa inna min shiatihi la ibrahim bokkoon na ci ay farandoom yaa ngi dégg chia chia mooy ñi farandoo konte na ñoom dañ ñee ay farandoo ali ibn abi talib lañu wa aliyun bariun minhum ali moo jëkk a dañ ci ñoom waaye ala kulli xaal chia mooy ña nga farandoo ña nga bokkal parti ca mooy ñi nga xam ne da ngeen bokk benn lu ngeen gëm bokk li ngeen di def kon ibrahim moom gëm na la nuux gëmoon ci tawxid jébbalu loon na yàlla na ko nuux jébbalu loon loolu di yow ci ban chia nga bokk yow yow julit ban parti nga bokk nga la way xamal ne sunu borom séddale ne multipartisme bi ñuy wax ci kaw suuf séddale na ko ci ñett ñetti parti moom ci kaw suuf ñaari farandooy seytaane lañu mooy hizbullah benn bi mooy parti bi yàlla parti bi yàlla ba mooy ñi nekk ala siratin mustaqim moom la ñuy ñaan yàlla fukk yoon ak juróom-ñaar bu su nekk ihdina siratal mustaqim siratal lazina an'amta alayhim mooy yoonu ñi nga gërëm ci ñoom parti baa ngoog farandoo yaa ngoog soo demee ci beneen aaya sunu borom dina ko leeral ci surat nisa min annabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihin wa xasuna ulaika rafiqa yow julit say farandoo sa waa parti mooy yeneen ci yàlla yónni woon siddiqina yi leen gëmoon ñi dee fi sabilillah gaa yu baax ya ñooñu ñooy say farandoo ñu ngi noonu gannaaw ba ñaari parti yi nga xam ne ñooy farandoo iblis mooy almaghdubi alayhim ñi nga xam ne xam nañ yoon bi lànk bañ caa jaar ak ñi nga xam ne bëgg nañoo jaamu yàlla ci xamuñu fu ñuy jaar muy wala daalin kon it yow sunu borom mu ne ibrahim kaane min shiati nuux ngalawaay yi it góorgóorlul bokk ci partim nuux ibrahim ba mu bokkee ci partim nuux dikkal na boroomam ci xol bu sell xol boo xam ne benn bokkaale amu ca xol boo xam ne benn rëy amu ca di qalbin salim te mbokk nañu xam ni li gën a rëy lu ñuy am ci kaw suuf mooy xol bu sell alal ji lum bari bari doom yi lum bari bari sunu borom nee na yowmal qiyaama mi ngi ñëw mooy yowma laa yanfau maalun wala banuun illa man ata allaha bi qalbin salim bis la boo xam ne doom yu bëri yi nga amoon ci àdduna du la jëriñ dara alal yi nga amoon ci àdduna du la jëriñ dara lan moo lay jëriñ mooy lañu di dugale sa bàmmeel ay ba ngay dem yóbbu nga xol boo xam ne benn bokkaale amu ci lenn lu neexul yàlla amu ci borom bi nee na ba mu dikkalee boromam ci xol boo xam ne xol bu sell la looloo taxoon mu jàkkaarloog bàyyam ak xeetam ne leen mooy yéen lu ngeen di jaamu xanaa du xërëm yoo xam ne yii na ko fent yett ko di ko sàkku lan mooy seen njort ci borom mbindaafan yi ca mbokk njort yéeféer ci borom mbindaafan yi mooy yàlla dafa sori il faut ñu am ñu ñu doxale suñ diggante ak moom su ko defee buñ leen laajoon lu tax ngeen di yett xërëm yi di bokkaale ak yàlla ñu ne wa ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila allahi zulfa dañ leen di jaamu ngir ñu jegeel ñu yàlla ibrahima ne sama zannukum bi rabbil alamin lan mooy seen njort ci borom bindaa fan yi amma yow julit lan mooy sa njort ci borom bindaa fan yi ngalawaay sa njort na nekk ne yàlla mooy ki ma bind moo ma doon taxaw bi ma nekkee suma biiru yaay bind ma nam ko neexee génne ma ci kaw suuf amul lenn lu ko réer misqala zarra ci liy xew ci asmaan yi wala kaw suuf soxlawul intermédiaire diggante kenn ak jaamam moom ngay jaamu doo ko bokkaaleeg dara mooy alqarib almujib ki la jege ki nga xam ne mooy nangu ay ñaan loolu yow mooy sa njort ci rabbul alamin te amoo lenn loo yóbbaale àllaaxira lu gën a màgg rafet njort ci yàlla na nga ko war a jorte mi ngi noonu sama zannukum bi rabbil alamin sunu borom nee na mu xool ci koy biddiw yi donte ne mi ngi ñu nettali feneen foo xam ne ca am mi ngi dagga seen te xeet bi naan leen man day jant bi mooy sama yàlla mu suux mu ne man bëgguma kuy suux weer bi la mu suux mu ne déedéet biddiw bi mu suux mu ne déedéet wala boog mi ngi xool ci kaw asamaan yi di leen xamal ni mooy yàlla ñu bind asamaan yi tasaare ci biddiw yi ndax yey na ngeen jël bant yi di ko méngale ak moom almuhim mu ne leen man day dama feebar feebar boobu yonent bi alei salaam ne ibrahima fen na ñett fen te fen yépp ci yàlla tax mu fen ko benn ba mooy bi muy wax ni dama feebar pour xeet bi dem bàyyi ko doonte ne nii booy xool ci dëgg-dëgg feebar ba itamit mooy feebaru xol la ci xeetam bi lu ñuy jaamu lu dul yàlla ñaareel ba mooy ba mu dajjee xërëm ya gaa yi ñëw na waaw ku def li mu ne xërëm bu mag bi moo ko def doonte ne mi ngi ci jublu woon attirer seen attention pour ñu xam li ñuy def erreur yi ni mu toll ñetteel ba mooy ba muy wax naan saarata sama sœur la te fekk soxnaam la ndax xamoon ne ne boo xëy na sama soxna la kon garde yi dañ koy rey ala kulli xaal mu ne man day dama feebar gaa yi ne ha daal di dem bàyyi ko moo tax lenn ci mufassiruna yi sax dana leen ma de damaa ragal li ma dal mooy feebaru peste yoo xam ngeen ne peste waliyas billah donte na amatul tey ci kaw suuf mooy li ngeen di tuddee Ebola rek suñu jamono tey ji mooy ku la laal mu dal la automatiquement moo tax mu ne ñu damaa feebar rek gaa yi daw wan ko gannaaw mi ngi noonu Cheikh Ousmane
فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنسفون والله خلقكم وما تعملون ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين barakallahu fiik sunu borom mu ni faraaga ila alihatihim noonu la jënge jëm ci seen xërëm ya fa qaala ala taakuluun mu ne waaw yéen xanaa du ngeen lekk maa lakum la tantiquun ana lu leen ñeel ba du ngeen wax faraaga alayhim darban bil yamin mu jëng jëm ci ñoom ci dóor boo xam ni ci ndeyjoor la ko defee ay ci kattan fa aqbalu ilayhi yaziffuun ñu daal di dëpp jëm ca moom ñoom ñëpp nekk ñoo xam ne ña ngay waaxu waaxu bu tàng qaala ata'buduuna ma tanxituun mu ne waa ndax da ngeen di jaamu loo xam ne yéen a ko yet wallahu xalaqakum wa ma taamaluun ci yàlla moo leen bind ak li ngeen di jëf qaalu bnu lahu bunyaanan fa alquuhu fi ljahim ñu ne tabaxal leen ko ab miir ab tabax bu kawe ngeen sànni ko ci biir sawara wa fa araadu bihi kayda ñu nammoon ci moom pexe fa jaalnaahum al asfalin ñu def leen ñoom ñooy ñi gën a suufe wa qaala inni zaahibun ila rabbi sa yahdiin mu ne leen man day maa ngi dem jëm ca sama boroom moom day dana ma jubal rabbi habli min as-salihin ay yàlla may ma ci jaam yu baax yi fa basharnaahu bi gulaamin halim ñu bégal ko ci nguur soo xam ne ay doom bu góor boo xam ne bu lewet la falamma balaga ma'ahu as-sa'y bam demee ba jot ànd ak moom ci mën a nekk di dox di liggéey qaala ya bunayya inni ara fi lmanaami anni asbahuk mu ne ay sama doom man day damaa gis samay nelaw ne maa ngi lay rendi fanzur maaza tara xoolal lan ngay gis ci mbir boobe qaala ya abati ifal maa tu'mar mu ne ko ay bàyyi defal liñ la digal sa tajuduni inchaa allahu min assabirin danga ma fekk bu soobee yàlla moos te ña nga xam ni ay muñkat lañu ñu bokk ci muñkat yi ñu ngi noonu bokk Ibrahim alayhi salaam gis nañu ni sunu boroom qissa bi ma ngi koy gën a leeral ci suratul anbiya Ibrahima dàgg sante na ak xeetam ne leen gis ngeen seen xërëm yi ngeen yaakaar la akidanna asnaamakum baada an tawallu mudbirin parce bu ngeen demee bàyyi fi xërëm yi danaa ko pexeem ah léegi nag def na pexeem ba gaa yi amoon nañ feet buñ daan feetu at bu nekk buñ daan feetu dañuy togg seeni ñam yu neex indi ko ci kër giñ jagleel yàlla yi daal di fiy teg ñam yi ñoom ñu dem ca àll ba def fay ñu fay def suñ ñëwee fekk picc yéeg sandax yéeg jaan yéeg yépp ku ne jël na lam soxla ci ñam wi ñu ne waaw yàlla yi barkeelu nañ ci ñam bi léegi nag doog a lekk li des ibrahima alayhi salaam bi dëkk bi yépp demee mu dem jëli aw sémmiñam ñëw fekk ñam yi tege xërëm yi taxaw sunu borom mi ngi ñuy nettali position ibrahim pour wone ni amuloon benn sikk sàkka bi muy dajj xërëm yi ndax yow sa dëkk maam mën na am guy guñ fay jaamu ak daqaaru ñu fay jaamu mën na am ne xam nga ñu lii baaxul shirk la waaye ku la joxoon jaasi ne la demal nga dagg ko boo koy daggee da nga ko dagg ak tiitaange amma Ibrahima sunu borom mi ngi ñuy wax dal gi mu àndaloon mu ñëw na xërëm yi waaw yéen ah du ngeen lekk lii ñu leen tegal lan moo leen ñeel ba du ngeen wax gis ngeen daal di commencé di daj te daj ji yàlla xam ñaata la woon almuhim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog bi muy dajji xërëm yi nekkoon ca Kaaba ga amoon na fa ñetti téeméer ak juróom benn fukki xërëm mu dajj yépp ba mu des xërëm bu mag bi mu jël simmiñ bi daal di koy wékk daal di moom dem dellu këram ah léegi gaa yi jóge nañ ci àll bi biñ ñëwee ñu xool xërëm yépp jóoru ñu ne waaw ko def lii am ñu ne ah samina fatan yazkuruhum yuqaalu lahu ibrahim ibrahima dong day ci dëkk bi moo contre xërëm yi ca moo leen doon menacé buur bi ne dem leen indil ma ko faatu bihi ala ayuni nas mi ngi tombee nag buur boobu bon ku ñu wax Namruus dem leen indi ko gaa yi riir fekk ibrahima fa mu nekk sëxatoo ko daal di koy indi faqbalu ilayhi zifun biñ ñëwee ibrahima ne leen waaw yéen nan ngeen di jëlee ay xërëm yu ngeen yettal seen bopp ba pare wëlbatiku di ko jaamu mi ngi noonu yéen a ko yett yéen a koy wëlbatiku di ko jaamu te loolu it mbokk doomu aadama li ngay gis ñu ne diw dee na ñoom ñoo ko jël dee sangu ko sangu ko ñoo ko yenu dem ba ci suuf gas bu mu xóot na ko fa dallam fu suul ba pare wëlbatiku di ko ñaan waaw sëñ bi kii bu ma doon boppam kay doo ko taxawu li nga ko taxawu lépp mu ne waaw yéen yéen a yett xërëm yii ba pare wëlbatiku waat di ko def yàlla ca yéen de yàlla moo leen bind moo bind li ngeen di jëf ay yàlla moo leen bind xërëm yi ngeen yett ay xërëm ay garabi yàlla lañu donte ne ne wa ma taamaluun dañ koy firi xatta li ngeen di liggéey yépp kattanug yàlla la boo ko doomu aadama bu yëkkatee loo xam kattanu yàlla la doomu aadama pexe bu mu def kattanug yàlla la mi ngi noonu moo tax xatta gaalub noox ga suñu borom féete woo ko ndax moo ko xamal noox moo ko may pexe wallahu xalaqakum ma taamaluun loolu bi mu amee xeet bi seeni lay ba mu jeexee mboolem ñi nga xam ne dañuy contre woote bi yàlla la ñuy mujjee utiliser mooy doole ñu ne kii day nañ ko lakk so demee an bi yàlla la yàlla wax xarriquuhu lakk leen ko wansuru alihatakum ñu taalal ko taal boo xam ne jéggi na dayoo parce que buur bi daf ne ku bokk ci dëkk bi na indi sayu mat gaa yépp dem muy jal boo xam ne kenn xamut nu mu toll bañ ko taalee kenn xamul sawara nu mu toll mu ne kon nañ ko utal tabax boo xam ne nii fa la ñu koy teg pour mën koo bëmëx mu daanu ca kaw loolu la borom bi subhanahu wa taala wax ne mooy pexe yañ doon bëgg a pexeel Ibrahim ngir mu dellu gannaaw ci pas-pas bi muy woote waaye sunu borom yàlla ne ñoom la ñuy def ñu doon ñu suufe te li lay wax neexaayu alquran soo doon jàng aaya yi rek da nga laaj sa bopp wa lii naka la demee waaye boo continuer jàng ba dugg suratul anbiya da ngay gis na bañ ko sànnee ci biir sawara bi sunu borom moo wax ak sawara bi ne yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala ibrahim ay sawara bi nekkal sedd ak jàmm ci ibrahim muy wane ne mbokk julit amul lenn luy loraate ci kaw suuf wala kaw asamaan lu dul ci ndigalu yàlla loolu tax gis nga ibrahima taal nañu sawara sànni ko ci sawara bi lakkul lu dul buum yiñ koy yeewe woon moo tax suñu borom ne def naa leen ñu gën a suufi suñu borom yàlla nag daa di ne ibrahim daa di leen di dëddu na leen maa ngi dem ci sama boroom moom day dana ma jubal mooy ki jëkk a gàddaay fi sabilillah te loolu it suñu boroom ba mu koy wàccal yonent bi mi ngi koy waajal pour moom it mu préparer gàddaay fi sabilillah ngi noonu maa ngi dem jëm ci sama boroom ca la jógee bi iraq daal di wàcci fi ñu tuddee Sham tey nga xam ne mu ëmb ay Palestine Jordanie ak lenn ci Syrie maa ngi jëm sama borom moom dana ma jubal daa di ne yàlla yàlla nag ma may ci gaa yu baax yi ndax dëdd na mboolem njabootam nekk umma cappaatuli kese ah sunu borom yàlla daa di koy wuyu ne ko bégal ko ci doom boo xam ne doom bu lewet la bu mu ko jox waaye yow jeune bi tamit nga la waay même boo amagul soxna del ñaan yàlla njaboot gu baax xam nga njaboot gu baax fu muy commencé ci soxna su baax nga noonu njaboot bu baax mi ngi commencé soxna su baax kon depuis nga nekk célibataire del ñaan yàlla may la njaboot gu baax loolu bu dee góore yaa ngi ñaan yàlla may la soxna su baax ak njaboot gu baax bu dee jigéen nga yaa ngi ñaan yàlla may la jëkkër ju baax ak njaboot gu baax loolu mi ngi noonu su ko defee kon ñu bàyyi xel bu baax loolu ñaan na ko suñu borom toog di ko seetaan di ko seetaan ba mu am juróom ñetti fukki at ak juróom benn ndax mbokk mi ngi noonu suñu borom yàlla yàkkamtiwul ba mu am juróom ñetti fukki at ak juróom benn loolu mu lay wan ne yow julit lu baax li ngay yaakaar ci yàlla di ko ñaan bu ci découragé dee ko ñaan rek mën na am fa ko yàlla di indee mooy li gën ci yow ba mu amee juróom ñetti fukki at ak juróom benn la ko yàlla doog a may doom di ñuy wax Ismaïl ci histoire bu xaw a gudd moo jóge ci koo xam ne nekkoon na jaam bu ñu mayoon soxnaam saarata muy hajira hajira moomu moo ko jural doom bu ñuy wax Ismaïl sunu borom yàlla ne nekkoon na doom boo xam ne doom bu baax bu lewet la te it mbokku yàlla mooy def lu ko neex gis ngeen xadir ba mu ànd ak Muusa ñi ngi dem dajeeg benn xale xadir ñëw rek cor bopp bi ak jaasi Muusa na ko yow dafa nga musiba di mu ne ko kii gone gu bon la bu màggee day yóbbaale waa ay waajuram ci lu bon dañoo bëgg nag bis bu deeyee waajur yi muñ muñ bu rafet yàlla may leen doom bu baax ci itamit mbokk ñu ngi noonu da ngay ñaan yàlla tànnal la doom yu baax am na doom joo xam ne boo dajale woon boo lemmi pédagogue yeeg borom xam-xam yépp mënuñ ci dara day bon rek gis ngeen su ko defee da ngay ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla may ko doom ju baax ju lewet sunu borom nee na ba mu demee ba mën a ànd ak moom ci liggéey ñu ne amoon na treize ans ou quatorze ans nga xam ne léegi lu bàyyi bi def mën na ko ca jàppale sunu borom yàlla wan Ibrahima ci nelaw mi ngi tëdd di rendi Ismaïl ca yonent lu mu gis ci nelaw moog lu ko yàlla yónnee malaaka ñoo yem ndax yonent du géntantu bi mu xëyee mu xam ne lii ndigal la bu bawoo ci yàlla subhanahu wa taala mu woo Ismaïl ne ko Ismaïl man day damaa gis samay nelaw na maa ngi lay rendi Ismaïl kuñ jàngaloon diine la ko xamoon boroomam la mu ne ko ay sama baay defal li ñu la digal dang ma fekk ma bokk ci nit ñu muñ yi te loolu mbokk da ngay gis yar njaboot ni mu amee solo te loolu day tax mu déggal la ci lépp loo xam ne ni neex na ko ah naqari na ko doonte ne loolu Ismaïla wax dang ma fekk insha allah ma ànd ci gaayu muñ yi war nañ caa dégg ñaar lu jëkk mooy jullit bul wax dara danaa def nangam lu dul nga ne insha allah nga noonu bul wax mukk danaa def nangam lu dul nga ne incha allah ñaareel ba toujours del boole sa bopp ci gaa yu baax yi moo tax ñu ne Moussa alayhi salaam bokk na erreur bi mu defoon bi ko xadir ne kaa ñu dem leen dong laa la sant bul ma laaj dara Moussa ne ko sa tajudi nii incha allahu sabira danga ma fekk may aju muñ moo tax dafa échec ndax daf ne danga ma fekk may aju muñ amma Ismaïla bi mu nee baayam da nga ma fekk mina sabirin da nga ma fekk ma ànd ak ñi muñ gis ngeen ni ko yàlla jàppale ndax yàlla dafa bëgg jullit ñi ànd moo tax ba julli bi nga julli sa kër yàlla di la ca fay benn boo ñëwoon ci mbooloo mi julli ko yàlla multiplier ko ba vingt-sept loolu tax suñu borom yàlla na ko Ismaïla jorte woon yàlla defele ko ko noonu Cheikh Ousmane
المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين barakallahu fiik sunu borom mu ne falamma aslama bañ demee ba jébbalu wa tallahu lil jabin mu daadi koy dëpp ca jëyam ba wa naadaynaahu an yaa ibrahim ñu daadi kay woo ne ko ay yow ibrahim qad saddaqta ru'ya yow day dëggal nga la nga xam ne mooy gént ga inna kazalika najzil muhsinin ñun day naka nii la ñuy faye ñay rafetal inna hada la huwa albalaau almubin lii day nekk na la nga xam ne mooy natt bu bir bu leer wa faday wa fadaynaahu bi zibhin azim ñu daal di koy jote ci la nga xam ne mooy gàtt bu ñuy rey bu màgg wa tarakna alayhi fi l axirin daal di bàyyi ci moom ci ñi nga xam ne ñooy mujj ca gannaaw salaamun ala ibrahim ay ak jàmm ak mucc day na nekk ca ibrahim kazalika najzi lmuhsinin nii it la ñuy fay mboolem ñuy rafetal innahu min ibadina almuminin moom day bokkoon na ci jaam yi nga xam ne dañoo gëm wa basharnahu bi ishaqa nabiyan min alsalihin ñu daal di koy bégale ishaq mu nar a bokk yonent mu nekk yonent ca gaa yu baax ya wa barakna alayhi wa ala ishaq noonu la ñu barkeele ca moom barkeel ci ishaq wa min zurriyatihima bokkoon na ci seen njaboot ga muhsinun aji koy rafetal wa zalimun li nafsihi mubin ak koy tooñ boppam tooñ goo xam ne tooñ gu bir gu leer la ñu ngi noonu bokk suñu boroom dogal na ibrahima doggu na ci rendi doomam ismaila te yàlla tax ismaila dogu na ci tëdd ñu rendi ko ca yàlla tax moo tax suñu borom ne bañ demee ba jébbalu ca mbokk lislaam mooy jébbalul yàlla mooy nga xam ne sa bakkan bi moomoo ko yàllaa ko moom sa alal ji moomoo ko yàllaa ko moom sa njaboot gi moomoo ko yàllaa ko moom lépp nga teg ko fi neex yàlla moomeelug yàlla la bu la ko laajee heure bu la ko laajee nga joxe ko loolu moo tax ñu nangoo def loolu dem nañu ba ismaila tëdd na ibrahima tëral ko dëpp kanam nga ngir bañ a jàkkaarloo moom di ko rendi daa di dem ba dara desul lu dul mu rendi ko suñu borom yàlla daa di koy woo ne ko dëggal nga li nga géntoon te effectivement gént na tëral doomam di ko rendi mi ngi nii tëdd tëral na doomam mi ngi gàddu paakaam kon dëggal nga gént bi loolu it mu lay wane ne mbokk suñ borom yàlla mi ngi fay yiine yi heure boo demee ba dogu ci jëf xamal ne pay ga tàbbi na na doon jëf ba mat naan matul loolu ci mbir yàlla la nekk moo tax yeneen ci bi alayhi salaam ni ay nit buñ dajee seen jaasi di xeex ki rey sawara la jëm ki ñu rey sawara la jëm ñu ne ko ki rey mbokk julitam dem sawra loolu jaaxul mais ki ñu rey nag mu ne moom day kaana xarisan ala qatli axi daa xiiroon ci rey mbokk julitam loolu kon mi ngi noonu ibrahima dëggal nga génte gi waaye nag kaay ma wax la ni ñuy faye ñi rafetal mooy bàyyil sa doom joojee payuk jibbuli gi dinaa la ko fay te bokk na ci mbokk suñu borom yàlla subhanahu wa taala daal di koy nomi def ko ab xaritam def ko xaritam wattaxaza allahu ibrahima xalila ndax yàlla moo tax mu won gannaaw baayam ak xeetam yàlla moo tax mu joxe bakkanam ñu sànni ko ci sawara yàlla moo tax benn doom bi mu am mu tiim ko nar koo rendi sun borom xam ne ibrahima bi xolam dara nekk ci lu dul yàlla moo tax sun borom ne wattaxaza allahu ibrahima xalila gis ngeen loolu moom kese moo ko am gannaaw bala sunu yeneen te sallallahu alayhi wa sallam ne yàlla day jël na ma xarit ni mu jëlee ibrahima xarit su doon man danaa am xarit ibrahima lay doon waaye yàlla daf maa jël xarit ni mu jëlee ibrahima xarit mi ngi noonu borom bi subhanahu wa taala nag ne natt bu màgg day mi ngi nii te mbokk natt boobu yàlla nattoon ibrahim natt na doomu aadama yi ci ñu jëfandikoo sharia doonte ne boo demee ci tubaab bi nga xam ne tey ñooy contrôler adduna bi seeni loi ñu jàpp ne moom kesee fi war a dox bépp état bu jógoon ne day attewoo l'islam daañ dal sa kaw lu ne daañ la ko yàq et pourtant ñoom day ñu ngi revendiquer ne Ibrahima seen maam la te Ibrahima ngir dab ndigalu yàlla mi ngi naroon a rey benn xale boo xam ne innocent la deful dara mu nar ko rey ci yàlla tax waaw gars yi yàlla moomu bu ne ki sàcc dagg leen loxoom ndax bu ngëmu ibrahima nekkee sa xol da nga hésité ci dagg loxo sàcc bi yàlla boobu bu ne ki njaaloo mas na say rey leen ko ndax da nga ci hésité yàlla bu ne ki rey nit fekk moo ko tey rey leen ko ndax da nga ci hésité su ko defee kon mbokk loolu ñu bàyyi ci xel bu baax sun borom yàlla moo ñu nattu natt boobee mu def ko yiw ñeel ñu àdduna ak alaxira natt bu mbir mi ngi nii balaa um mubin borom bi nag nee na ma jote ko ci benn gàtt bu rëy te mooy sunu borom jox na ko benn kuy boo xam ne kuy bu rëy la mbokk kuy bu rëy gis nañu jamono tey ji rek fan yi passé ñu ngi may wax benn waay bu yor fii gétt concours xar yi sax lu ci bëri da cay jël fee am na benn xaram boo xam ne cent cinquante kilos lay pesé ci rëyaay ndax na na mu toll kon la yàlla ne xar mu rëy la yàlla rek a xam xar mu mu toll ba da ngay xam ni bokk na loo xam ne nii mu fassiru nii rek waa sir yi dañ koy wax ñu ne bopp xar boobu bi jini xar boobu xe sëti ibrahim yi ñu ngi ko doon donnante donnante ba jamono yonent bi alayhi salaam bi jën yaa nga foofu gannaaw ba ay fitna amoon ci kaabe geeg yooyu ca la dem ba réer muy gàtt bu rëy loolu nga xamee ne ni nag sunu borom yàlla defal na ko ibrahima alayhi salaam mu ne nii laa bàyyee ci ñi ñëw gannaaw ñépp ñuy ñaanal ibrahima la nga xam ne mooy jàmm nañ ko doon ñaanale nuux nii lay faye ñay rafetal waxoon nañ leen ko ca la lam ko defele nuux nekkoon ne ci jaam yi gëm waxoon nañ ko nam ko defele yonente yàlla nuux loolu it moo tax ba sunu yonente sallallahu alayhi wa sallam sunnaal la nga xamee ni nii mooy bisu tabaski kër gu nekk bis bi ibrahima doon bëgg a rey ismail kër gu ne nañ fa tëral benn xar ñu rey ko képp koo xam ne am na doom ngalawaay doom boobu nañ ko reyal benn xar ñu jote ko comme nañ jote woon ismaila moo tax borom bi dama koo jote ci am kuy mu rëy yowit nga jël am kuy bu la ko sa doole maye lu kuy ma rëy rëy ca puukare amu ca noonu la gën a baaxe bi zibhin azim léegi nag benn doom la amoon yàlla na ko rey ko mën nangu koo rey yàlla bàyyee ko doom ji dollil ko ci beneen muy ishaq fa basharnahu bi ishaq moom it mu nekk yonenti ci gaa yu baax yi borom bi nee na ma barkel ko barkel ishaq te na am mboolem yonent yi ñëw gannaaw yépp ay doomi ibrahima lañu ay ay sëtam waaye mboolem yonent yi ñëw gannaaw ishaq yépp ay sëti ishaq lañu bam des sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam bal ishaq boobu am na doom di ñuy wax yanquub yàlla def ko yonent yanquub boobu am doom di ñuy wax yuusufa yàlla def ko yonent léegi fukki doom ak ñaar yooyu nga xam ne mooy al asbaat mboolem yonente bani israil ci ñoom lañ jóge waaye déglul li suñu borom wax nee na ñoom ñaar ñooñu muy ibrahima ak ishaq maa leen barkeel waaye seen njaboot am na ca ñu rafetal waaye am na ca ñu tooñ seen bopp boo gisee nag li yàq diine tey mooy lu ñuy wax mooy suñu saar day mi ngi nii mboole mi doomam mboole mi sëtam ñëpp la ñu war a topp ñëpp la ñu war a yaakaar moo gaa yi yàlla lu mu defalul woon ay yonentam dana ko defal suñ saar wala suñ caamawaay déedéet kon c'est pas forcément que nit ku baax doomam yëpp dañu war a baax na am nit ku baax mën na am doom yu baax bal mën na am doom yu ko gën téeméeri yoon waaye it noonu la mën a amee doom bu bon kon ngal la waay bul fonk nit ki topp nit ki ngir diwee baayam waaye fonk ko topp ko ngir gis nga ci moom comportement bu dëppoog la neex yàlla jalla wa ala mi ngi noonu Cheikh Ousmane
ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتدعون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين
barakallahu fiik suñu borom mu ne walaqad mananna ala Musa wa Harun ñun day baaxe woon nañu ca Musa ak Harun wa najjaynahuma wa qawmahuma min alkarbi alazim ñu musal leen ñoog seen xeet ca tiis wu màgg wa wa nasarnahum fa kaanu hum algaalibin ñu dimbali leen ñoom day ñoo nekkoon ña nga xam ne ñooy ñoo not wa aataynahuma alkitaaba almustabin ñu jox leen la nga xam ne mooy téere boobee nga xam ne téere bu leer ba cay leeral muy tawraat wa hadaynahuma alsirat almustaqim ñu jubal leen ca la nga xam ne mooy yoon bu jub wa wa tarakna alayhima fi alaxirin bàyyi ca ñoom ñaar ca ñuy mujj ca gannaaw salaamun ala muusa wa haarun lii di jàmm ak mucc day dana ñeel nekk ca kaw muusa ak haarun inna kadhalika najzi almuhsinin ñun de nii la ñuy fay ña nga xam ne dañuy rafetal innahuma min ibadina almuminin ñoom ñaar bokkoon nañ ci suñu jaam yi nga xam ne dañoo gëmoon wa inna ilyasa la min almursalin donte ne ilyas it bokkoon na ci ñi nga xam ne dañ leen a yónni woon is qaala li qawmihi ala tattaquun bi muy wax ak xeetam ba ne ren ma ndax du ngeen ragal yàlla ataduuna baalan wa tazaruuna ahsana alxaaliqin ndax da ngeen di woo xërëm bi di wax di tudd baal ngeen bàyyi ka gënan ca ka nga xam ne mooy bindkat yépp mi ngi noonu allah rabbakum wa rabba abaikum al awalin yàlla mi seen baay yàlla mi seen borom di borom seen baay ya nga xam ne moo jiitu woon mi ngi noonu mbokk suñu borom mi ngi ñuy wax fi Muusa ak Haarun nga xam ne Nuux moom jëkkee ak Ibrahim ak Muusa ñoom ñooy ñett ci yonent yi gën a màgg ci yonent yàlla yi ñaar ñoo ca des mooy yonent yàlla muhammad mi leen gën ñoom ñépp ak isa ibnu maryam muy ulul azmi min rusul di juróom yàlla mu ne moo leen baaxe moo leen baaxe ci def leen yonent ndax yonent kenn du ko faggu loolu muy benn waaye it mbokk yàlla moo ñu baaxee boole ñi ci julit ñi yàlla na saxal loolu ci ñeen ba baa ñu dajeeg moom mi ngi noonu laqad manna allahu ala almuminin yàlla moo ñu baaxee yón ñi ñu yeneen wërsëgal ñu gëm ko mu ne maa baaxee Muusa ak Haaruun daa di leen di musal noog seen xeet ca la nga xamee ni nii moom mooy tiis bu màgg ba ca mbokk firawna ay at yu dul jeex lu ëpp quarante ans yoo xam ni mi ngi leen di jël def leen ay jaam di rey seen doom yu góor di liggéeyloo seen doom yu jigéen ci mbugal moo xam ne mbugal mu leen toroxal la sun borom yàlla musal leen ci ci tiis bu màgg boobee dimbali leen ñu wëlbatiku nekk ña nga xam ne ñooy ña not te loolu it mbokk yàlla mooy def lu ko neex su ko defee yow jullit toujours war ngay ñaan yàlla li nga xam ne mooy dëkk lislaam yi dañu leen noggatoo yéefir yi jël seen bomb di tuur guddi ak bëccëg yàlla na yàlla dimbali leen kattanal dëkk lislaam yi ba ñuy dem di jihaad di tasaare lislaam ci kaw suuf donte ne ñoom buñ koy def dañ koy def ci yërmande suñu borom yàlla mu ne nii laa leen joxoon téere bu màgg boobee di tawraat waaye jubal leen ca yoon bu jub ba muy siraatul mustaqim yoon boobu nga xam ne ca la nuux nekkoon ca la aadama nekkoon ca la mboolem ñeneen ci jaaroon muy siraat alladina anamta alayhim ay min annabiyin wa siddiqin wa shuhada daal di bàyyi ci ñoom ñaar aw tagg wuy sax ba ila yawmi din te mooy mboolem xeet yi fi jaar yépp heure buñ tuddee Muusa dañuy wax alayhi salaam Haarun alayhi salaam moom la tubaab yi di wax paix et salut sur lui sunu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne nii laay fayee ñiy rafetal waxoon naa la ko ba ma lay wax biri nuux ñoom sunu jaam yi gëm lañ bokkoon waxoon naa la ko ba ma lay wax mbiru nuux ca jaar ci Ibrahim ca mooy ngëm gu sell heure bu dëggoo ci doomu aadama mooy tax mu sellal ay jëfam ca yàlla tax waaye moo koy juralit mujj gu rafet moo koy jural tagg wu rafet gannaawoon suñu borom yàlla boole ci yonent yooyu it benn yonent ci bani Israil ñu koy wax yonent yàlla Ilias nga xam ne ñoom ñépp yonent bani Israil yëpp suri wuñu gox boobu ñuy tudde Sham mi ngi noonu Syrie Jordanie Palestine gox boobu ñoom ñëpp fa la ñu nekkoon bokkoon na ci ñi ma yónni woon mu ñëw fekk waa xeetam di jaamu xërëm bu ñuy wax Baal donte ni amul benn xeet bu jaamu benn xërëm day am kay bu ci gën a rëy waaye toujours ay xërëm yu bëri la ñuy doon waaye nag am na bi gën a rëy comme waa Màkka nit ñi jëloon hubal muy xërëm bi gënoon a rëy ci nekkoon ca Kaaba gi mu ne leen waaw yéen nan ngeen di woowee baal ngeen bàyyi ki gën ci ki nga xam ne mooy ki bind waaye mbokk julit ak neexoon julit ni biñ jàngee aaya yi ñu bañ a gis benn jurit ba fakastalu au lieu mu ne yaa allah wala subhanallah mu ne yaa Cheikh Thiam ak ni xool loolu bañ a am naka ngeen di woowee ay mbindaas man bàyyi yàlla mi nga xam ne moo gën ci ñuy bind yàlla moo la bind moo bind kooku ngay woo wallu même bu doon muhammad sallallahu alayhi wa sallam wallahi sa oto du këpp nga ne yaa rasulullah def nga shirk bu rëy mi nga noonu naka ngay woowee rasulullah bàyyi allah mi nga xam ne moo ko yónni woon def ko yonent allah mi nga xam ne mooy borom kàttan gi moo la bind bind leen moo tax mu ne atad'una ba'lan wa tazaruna ahsana alxaaliqin ki nga xam ne moo gën a baax ci lépp ñuy bind te boo gëmee ne moo la bind rek nga war koo doyloo ñu ngi noonu boo gëmee ne yàlla mi bind sama biiru yaay def ci man li ma def yëpp wallahi alaysa allahu bi kaafin abdah ndax yàlla wurtu doy ab jaamam wa tazaruna ahsana alxaaliqin yàlla mi nga xam ne mooy seen boroom mooy seen boromu baay moo bind leen bind bind seen baay ba pare ngeen di woo keneen di ko bàyyi moom mbokk lii da ngay gis ne benn mbir la boo xamee ne nii sunu borom yàlla moo koy wax doonte ne ni ni ñu aadawoo ak yéen mooy di yem ci ñaari page yi te it gaa yi nga xam ne ñooy toppatoo pédagogie di xool am njàngale ba ñu commencé di defar ay film dañ daan def ay long métrage yu dem ba jeex waaye biñ demee ba bëgg a mooñ xel nit ñi dem leen neexee dañ koy dagg ay épisode yoo xam ne dañuy bàyyi ba film ba gën a neex ñu dagge ko foofu su ko defee xale yi épisode bii di ñëw suba moo leen di gënal reer moo leen di gënal jàng seen i leçon su ko defee yal nañu yàlla dajalewaat àllarba ji di ñëw ba ñu xam ne Ilias nu muy mujjee xeetam yal na yàlla may ñu ngëm ngëm ngëm ngëm mayoon Nuux may ko Ibrahim may ko Moussa ak Haroun yal nañu yàlla wërsëgal ñu jébbulul ko nañ ko jébbulule woon wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain ndax Ibrahima bi muy diri paaka bi doomam la jàppoon moom lay rendi wala xar lay rendi ala kulli xaal mbokk li gën a mucc ayib mooy ñu yem fi yàlla yem am na ñoo xam ne dañ ne dafa tëral Ismaïl jël paake bi rendi rendi rendi affaire bi daggul am na ñu jàpp ne dafa tëral paake bi rendi ba siggi gis Ismaïl taxaw fee am xar taxaw mais li ñu yàlla wax rek doy na parce que suñu borom dane fa lamma aslama bañ demee ba jébbalu ba mu tëral ko yàlla wax na jébbalu gi wax tëral bi sarañ ko woowee donc yàlla tuddul fenn fu mu ko rendee daf na jébbalu nañ tëral na ko ma woo ko kon loolu la ngay la ci gën a mucc ayib mooy ñu doy loo ne ba mu dogoo ba tëral ko ba dara desul lu rendi te la ko suñu borom ne Ibrahim mu ñëw ñu jël am xar jox ko mu daal di koy tëral rendi ko ci place am loolu moo ci gën a mucc donte ne mufassiru nii wax nañ ci yeneen wallahu jalla wa ala alam naam bismillah yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne su ngeen déggee aju nodd ji na ngeen wax li muy wax buy wax xaya ala salaa ngeen wax la xawla wala quwata illa billah xaya ala alfala ngeen wax la xawla wala quwata illa billah waa léegi bu dee day wax nag asalaatu xayru min annawm ñun lan lañu war a wax mbokk la gën a mucc ayib foofu moo ñu delluwaat ca yaxu xadis ba mooy bu ngeen déggee aju noddukat wax leen li muy wax génn ci la ca yonent bi alayhi salaam génne ay buy wax laa xawla hayya ala salaa yàlla falaa ngeen wax laa xawla wala quwwata illa billah maadaama gisuñu moo wax ñu ne wax leen lii buy wax asalaatu xayru min annawm la gën a mucc ay yëpp mooy kon nañu wax allahu akbar allahu akbar asalaatu xayru min annawm asalaatu xayru min annawm laa ilaha illallah ila axiri génne ci lam ca génne te mooy hayya ala salaa yàlla falaa nga wax laa xawla wala quwwata illa billah ndax laa xawla wala quwwata illa billah bi li muy firi mooy waa ji dalaa woo dana ne kaay assalaa salaa googu yàlla ko digle yow nga ne laa xawla wala quwwata illa billah ay yàlla rek moo am pexe kattan ngir ma mën a taxawi julli gi na ko yàlla bëggee xay yàllal falaa kaay leen ci li leen tax a texe nga ne laa xawla wala quwwata illa billah yàlla subhanahu wa taala rek moo am pexe kattan ci dëppale maak la nga xam ne moom may tax a texe amma la ca des ñu wax ko na ko noddukat bi di waxee mi ngi noonu loolu moo ci gën a mucc ay yëpp wallahu subhanahu wa taala alam naam ala kulli xaal kon bismillah waaleykum salaam wa rahmatullah def yu bëri parce que ñu am xam-xam kii xam ci télé bi wax ni am na fukki rab ak benn yoo xam ne dañuy dem àjjana jigéen boole xuddudum yan daaw kii ak xam daay moom ak xaj bi am na ak ak xew dof daal ko benn na bàyyi bi na dem àjjana
am na ñu wax dafa am fukki bàyyi maag nangam yi dem àjj àjjana mbokk loolu seeni xalaat rek la sunu borom yàlla subhanahu wa taala da ngay gis ne heure boo xamee ne nii dekkal na mbindaa fan yi ñépp lay dekkal gannaaw ba mu atte bàyyu may ci mandu teem wëlbati leen ñoom ñépp delloo leen ñu nekk ay suuf su ko defee ajjana ña nga xam ne ñoo fay dëkk mooy nit ak jinne fa bi ayi alaayi rabbikuma tukazibaan mi ngi noonu mooy nit ak jinne ñoom ñooy dëkk aljanna amma yeneen baayuma yi ñoom yàlla tegu leen woon jaamu yàlla dem àjjana wala dem sawara baayuma yàlla da koy fixé ay baayuma du mooy yàlla baayuma mi ngi sabbal yàlla da ko yàlla bindee amul responsabilité bu ko yàlla teg responsabilité nit ak jinne ñoo ko am su ko defee ñooy dem àjjana ñooy dem sawara boo saxalee am na bàyyi mu yi dem àjjana la nga saxal bàyyi mu yi dem sawara mi ngi noonu parce que ni bàyyi ma mën a defal wax loolu bàyyi ma defal bon su ko defee nit ñi ci seen xalaat yu rafet lu yañu rafet lu ñoom rek ca la ñuy waxe yooyu waaye amul benn tegtal buy wane ne benn bàyyi ma dana dem di dëkk aljanna boo xam ne dafa ñëw ci texte hadis yu leer wallahu subhanahu wa taala alam ah bismillah now melukan kan kan jinne melokaanu jinne ala kulli haal ndax subhanallah ala kulli haal ndax jinne yi bu ñu nekkee ci biir àjjana ana ban melokaan la ñu yor loolu la chaque ne xamaguñ ko mooy xàttaa nit ñi bu ñu nekkee ci biir aljanna daañ yore melokaanu nit mais suñu borom dana changer seen jëmm ya ñu doon nit ñoo xam ni dañuy guddee trente mètres ci kaw mi ngi noonu am naa jinn yi nu ñuy mel la chaque ne du ñu mel comme adduna ni doomu aadama di gisi jinni di jommi ndax doomu aadama boo gisee jinne jommi rek mooy dalaa bëgg a saay-saaye mais jinne bu la bëggul saay-saay doo ko gis yàlla tudde boo gisee tudde jinne moo ñu làqu su bëggee saay saay doomu aadama rek la koy woon boppam ci melokaan donte ne jinne dina jël melokaanu xaj dana jël melokaanu muus dana jël melokaanu leneen ak leneen amma bu dee biir àjjana suñu borom la chaque ne dana taaral seeni jëmm ñu nekk ak nit ñi ci biir ci àjjana donte na am na sax ñenn ñuy dem ba naan sax yàlla day wëlbati mbir yi su boobaa nit ñi ñoo leen di gis ñoom duñ gis nit ñi waaye loolu mbokk nekkul lu liy matal taaru àjjana ay suñu borom mi ngi wax xéewal yi diggante nit ak jinne suñu borom dana jël taaral seeni taar am na nu ñu mel loolu xamuñu ko comme malaaka yi daan dugg biir àjjana di min kulli baab di di teral jurit ñi nan la malaaka yi mel loolu xamuñu ko mi ngi noonu waaye la chaque ne jinne yi ak malaaka yi ñoo bokk biir àjjana ñu mujj ci mbokk bale rek doon yëkkati fële waaw waaw bismillah waaw ah waaw waa ji nga xam ni dafa lal xaj ndax kookee dafa war a doon koy raxasu ji mbokk loolee la ci gën a not moo dina xaj nekkul sobe ci jëmmam sobe si mi ngi nekk ci lay génn ci gémmiñam mi ngi noonu loolu mooy da ngay gis ne loolu mooy la ca gën a not ci borom xam-xam yi donte ne ni daan ci gën a ak indi ak leeral insha allah ci dimanche bi di ñëw ndax ñu ngi yëgal mbokk yëpp ne jeexal nañu sunu téere boobu di riyaadu salihin ba ñu ngi dal téere boo xam ne moom la ñuy tuddee bulughul maram min adillati al ahkam insha allah dimanche bi di ñëw attey xaj yooyu ak la ci aju dana ca wax loole moo tax ba doonte ne am nañu jàpp ne xaj ci boppam dafa nekk sobe waaye la gën a not léppi tegtal mooy xaj nekkul sobe ci laal ko jamono yonente bi alayhi salaam xaj yi dañ daan xëy ci jàkka ji di dugg ak génn fu leen neex ñu dugg fa sunu yonente alayhi salaatu wasalaam gisoon na ne jamonoom nit ñi dañ daan yor xaj di ko sàmmee yor xaj di ko rëbbee da ngay gis ne dañ daan dem di yónni xaj yi xaj yi di jàpp ay njombar gi kenn xamul almuhim mooy incha allah daan ci indi ak leeral waaye ñuy wax rek mooy laal ab xaj firiwul nekkoon bala ngaa julli fokk nga jàppi mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam subhanaka allahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk